jàppale am na directeur yoo xam ne jàppale xale yi rek ñoo nekk ci seen bopp d'abord d'abord production d'abord production bi Babac et bi Mohamed ñoo nekk ci biir làmb ji parce que ñoo jàppale mbir yi loolu incha allah dina taxawal combat muy demee Pouye 2 Boy Sylla arbitre bi sifflé na quatrième combat fukki fan ak juróom ci la fekk Saalum Saalum ak Mbour ci. waaye le 27 le 27 mars. ah le 27. arbitre bi sifflé na. combat bi dox ci diggante Pouye 2 ak Boy Sylla. ah. Pouye 2 Boy Sylla. Pouye 2 moo moo xaw a xees tuuti mbokk yi ñoom booy xool ñoom ñaar dañoo xaw a bokk lu ñu niroo booy xool ñoom ñaar dañoo xaw a bokk lu ñu niroo. ñoo ñoo takkaayu xonk yeeg ngemb lu weex li muy dee Boy Sylla muy dee Boy Sylla muy dee dem na léegi waaye demul Boy Sylla moo ñëwoon ginnaaw muy dee la ñu jàkkaar lool eh Mbaye Gouy Gui tuus na léegi lu neex ànd ak waa Bawol ma gis ci ñoom ñagas gis ci Tapha Tine ah Gouy Gui Boy Sila Gouy Gui Boy Sila ñi est-ce que bokkuñu sëriñ ñaar xale est-ce que bokkuñu sëriñ moosay xonk yu ci tànk yi moosay xonk yu ci ndigg li moosay yu ci biceps yi moosay xonk daan na jël ko Pouye 2 jël na Boy Sylla eh daan na ko daan na ko Pouye 2 daan na Boy Sylla jeex na jeex na bàyyi jàmbur daan na ko Pouye 2 daan na Boy Sylla Boy Sylla comprendre Boy Sylla il n'a rien